Euh, monsieur le ministre maa ngi nuyu di nuyu say collaborateurs di nuyu les collègues honorables députés di nuyu presse bi nga xam ne ni moom moo présent ci salle bi euh, di entamer samay propos si encourager le groupe Wallu si combat de principe bi nga xam ne ñu ngi nekk di ko xeex euh, ndax nag am nañu droit avoir des éclaircissements si li nga xam ne ni moom mooy seen candidature candidat Karim Wade waaye nag ma bëggoon rappeler juste que ne le conseil constitutionnel sept sages ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk le président Ousmane Sonko tegu leen fa Macky Sall moom moo leen tànn teg leen fa c'est un rappel euh, may fàttali aussi que ne li nga xam ne nii moom mooy le code électoral ñun ñoo ko fi voté woon kon nañ assumer may fàttali aussi fàttali aussi ne li nga xam ne nii moom mooy euh, droit de contrôle sur le parrainage ñun ñoo ko jox waa conseil constitutionnel kon nañ assumer euh, ci loolu may wax ne euh, li nga xam ne ni moom mooy les élections nag ñun nous sommes non au report des élections parce que la volonté sénégalaise mooy ñu dem élection de la volonté des sénégalais mooy ñu dem élection kon dañuy dem élection euh, ci loolu nag ndax nag sénégalais yi bu fekkee ñoom dañoo nekk ay victimes kenn du leen xool sénégalais ñoom ñoo nekkoon victime si force fond Covid te kenn ubbi fi ay questions d'enquête parlementaire sénégalais ñoom ñoo nekk ñoom ñoom la si géej gi te kenn ubbi leen ay ba pare. Euh, sénégalais yi tamit ñoom seen alal bu fekkee dañ koy salfaañe kenn du leen lijjanti ndax nag les mille milliards de remise gracieuse yi nga xam ne ni jox nañ ko entreprise sénégalais ñoom ñoo ko moom te kenn waxu si kon nag sénégalais bu fekkee ne ils sont victimes am problème kenn du leen lijjanti bu fekkente ne c'est des questions politiques ñu xam ne mooy le dos des sénégalais kon nag dañuy dem élection ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko nag moom dafa yàgg a défendre dafa yàgg a défendre que mu am des élections libres transparentes et inclusives loolu la président Ousmane Sonko mu sa défendre ba mu koy wax nag jàppoon nañ ne c'est à profit te xamuñ ne ñun projet la ñu yor projet bi nga xam ne yor nañ ko nag képp koo xam ne tànn nañ la ne la yow yaa ne si kanam rek dañ lay dañ lay jiital pare jàppale la ànd ak yow liggéey ak yow te président Ousmane Sonko dafa joxoñ candidat candidat ban mooy le président Bassirou Diomaye Faye Diomaye nag di Sonko Sonko di Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko di Diomaye pour mu leer dalee juddoo juddoo fii si biir Sénégal dégg njagañaaw gii la juddoo jéggaaniwul ay maam jéggaaniwul ay dëkkandoo abbiwul ay dëkkandoo fii la dëkk Sénégal gii la dëkk c'est un Séeréer pur kon nag mu leer beneen bi mooy may wax ñi nga xam ne ñoom ñooy les patriotes le 25 février dañ koy waajal waajal leen ko dem retirer seen carte carte d'identité seen ba pare dem vote ji reste si bureau yi sécuriser seen vote beneen bi mooy ñu xam ne le 25 février day nekk une journée une grande journée électorale te xam ne le 25 février sera le jour du Sénégal en fête incha ñuy wax ne le peuple sénégalais ñoom ñooy décider objectif bi nga xam ne am nañ ko mooy le 25 février que mu am le chute du régime de Macky un régime de triomphe ñu triompher ba pare avec des forces politiques souverainistes et panafricaines incha allah rabbi le peuple triomphera et le peuple incha allah dina fi jëlee teg fi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo war a doxal te ki war a doxal mooy le mooy Bassirou Diomaye Faye incha allah rabbi mu neex leen mu naqari leen élection dafay am li tax ba bëggu leen élection am xam ngeen ko li tax ba bëggu élection am xam ngeen ko da ngeen foogoon ne bu ngeen téye euh, Ousmane Sonko Pastef du am candidat wala Pastef ku joxoon joxoon day nekk koo xam ne du am force ñun ku ñu joxoon nga dem le Sénégal incha allah dina dem le président Ousmane Sonko moo joxoon Bassirou Diomaye Faye te dinañ vaincre nous vaincrons incha allah rabi 11h ñu jubilé bu soobee yàlla jërë ngeen jëf.